salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi naa def. maa ngi sant yàlla bu baax. kooku sëñ Moussa. waaw waaw. kooku Mbacke Cheikhouna. waaw sëñ Cheikh Moussa Mbacke. na nga def. Mbacke Mbacke. alhamdulilah. alhamdulilah. ah sëñ bi yow de. Hmm. am naa ci yow mbett. Hmm. lool. am naa gàcce ruus naa. kon ngi waxal di giñ ne ko ci Xaadimu Rasuul neriwuma mu guddi bi ba ma laat ko woow mi hmm. ni mooy sañ hmm. ba léegi ni neriwuma ndékkiwuma añuma naqar boo xam ne moo loo xam ne sama xol bi ni muy def fi ni mënul ko man de am na loo xam ne tëntu woon naa ko waaw waaw waaw waaw ma xam ne waaw am na lu nga xam ne yaakaar naa ne su fekkoon hmm. dafa waaxu jëm si ci njabootu sëriñ Tuubaa neexul ba neexul jàppoon naa ne taalibe Sëñ Tuubaa yàpp yi dox si diggante moom kon bu jugee ci biir taalibe mm. Sëñ Tuubaa yi. Mm. ci biir dëkk bi. Mm. dafa mel ne seytaane ngi leen di bëgg a jekk. waaw damaa bëgg yow mi ko def yaa ci amoon naqar askan wi ñun nga xam ne amuñ lu dul sëñ siit. waaw ah, yaakaaruñ lu dul sëñ siit. muy sunu ndey di sunu baay di sunu maam di sunu sëriñ di lépp ndax suñu diggante Sëñ Tuubaa waaw dama dama bëgg nga may ma tuuti. may ma rek ma àggale tuuti. waaw waaw amuñu lu dul moom. mooy suñu tubaab mm. mooy suñu suñu tubaab ci kaw suuf ak lu a lu wér. xooluñu lan nam lu xam mm. tànk sëñ Abdou rek lay dox. Mm-hmm. kon suñu déggee mm-hmm. nañ ne fu ne lañ koy déggee ci àddina ba def ci yow. Mm-hmm. naqar wa dina metti ci naqari nag am nañ ko. rawatina nag bu ma nee sëñ ci koo jëlale waaye soxna Bali mii rakkam nga tudd man nday la ci man. kenn ko bëgg ñu laal sa waajur amul. dëgg la kenn ku bëgg ñu laal sa baay amul. dëgg la kenn ku bëgg ñu laal sa yaakaar yi addina ak àllaaxira amul. amul dëgg la. kon am na ci lu nga xam ne bu fekkee ne Serigne Touba da koo def ci njabootam bu neexul ñu it sañ naa maanu sañ jàpp ñaamuram. ci ci dëgg la. rawatina nag di ko génne ci ay audio ba nit ñi di ko jóg présenté man jëm bopp ki ma ko njëkk a envoyé bi ma ko envoyé dama yàq sama. te suba ba néegé ni maa ngi wër sa numéro mënu ma ko am dama noonu foo nekk ma. am na loo nga xam ne nag. dara am na loo xam ne nag. dara mënu koo faj. lenn rek ko mën a faj. nit ki fam mu jaaroon mu jaaraat. waaw parce que. ñun sëñ Tuubaa dong lañ yaakaar. sëñ Abdou Lahad lañ yaakaar. gisuñu Serigne Touba gisuñu Serigne Abdou Lahad. Serigne Sidi lañu gis moo fi suñu Serigne Touba. am na lu nga xam ne nag. ku ni Serigne Touba nga yaakaar ba pare. wëlbatiku di ko teg ci daru bàkkar sëñ Tuubaa man gëmatuma ne sëñ Tuubaa nga yaakaar waaw bo euh, euh, yaa ngi dégg waaw man na nag respect bu ma la joxoon am na cër bu ma la joxoon ndax jàppoon naa ne am na ñu ñuy waxal yenn yi ci dëkk bi waaye yaakaar ne bokkoo ci waaye sama ma lay waatal sëriñ Tuubaa la mm. di la waatee ci Mm. wallahi li muy yow a tax te ci dëkk bi waaye barki alquranu karim bu fekkoon ne tey mm. damaa yëndu biir mm. Touba barki alquranu karim kon la ñuy dégg waaw waaw waaw may ma nag sëñ bi ma ma wax ak yow bu waaw waaw may ma ak yow bi waaw sëñ bi da dafa daggoon. Mm-hmm. sëñ bi sama. waaw. bu ma la jégloo. Mm-hmm. ci li dal ci sama kaw. Mm-hmm. Eh, yaa muy dégg. man ki bokk ak sama ndey ndey ak baay. sëñ Abdou lañ ko tuddee jox ko ko. mu mëritu ko muy Abdou Lahad Diouf. ginnaaw bu bi mu jébbalu ci sëñ Siri. taawam sëñ la ko tuddee ka ca xaari xaarim ñoom ñëpp waa kër sëñ lañ ñoo ñoo dëkk fee ci ci ginnaaw kër Njóoke bi ci yoonu da Daaru Muxti mhm. man mii soxna Xadi Ndey sëñ Saaliwu moom a leewu sëñ def ci sama nopp bi aw aw tur sëñ Blaat moo jëlee sama yaay Cees ndax bañ fi bëggee indi jamono dañu woon ndox amu fii te fii dafa dafa dafa tàng mhm. sëñ Blaat moo leen jël sama yaay indi yaa ngi dégg li ma wax bu baax. maa ngi lay dégg bu baax. bi yàlla dogalee mille neuf cent quatre vingt deux. Mhm. jëm quatre vingt cinq. Mhm. mu jàppalu ci nit xale ci yëfi dëkk bi. bu yóbbu nu njaareem bañ am pël mat juróom benn weer. Mhm. ba ma dellu see sañ blaat dafa sama bàyyi dafa jàpp sama loxo andi ba ci sañ blaat ba mu ñëwee. mu wax mi kii di sama doom daa bokkoon ci gone yi ñëwoon def loolu ku ñëw ma bëgg nga nga ñaanal bëgg loolu yooyu yëpp bañ cee jaar mu mu jeex ci mu tukki bëgg ne ko est-ce que daa daa téye ma ñaan ñaan ñaan ñaan ba noppi ne ko yóbbu ko ci sëñ sëñ Abdou lii nee la nee la demee bi ma demee su ma tuddee sëñ Ablaat daaw jéeg la bindab kaamil mi ngi fi boo laajee soxna may la xam na ko dama dama ko fi dafay dem toujours kon nag man ban intérêt laa am ci wax ji koo xam ne yow am commerçant nga da nga. looloo looloo ñëpp Moussa. waaw waaw waaw waaw waaw ah, waaw. li la sëñ Ablaat la waaw avant sëñ Abdou sëñ Touba la waaw loolu boo joxoon sëñ Touba war ma hmm. doo fekk waa sëriñ ñi di leen teg ci seen der bi naka su dul noona daal hmm. sa climatiseur yëkkati sa tànk jor sa audio di wax lu neex hmm. war ngaa xool ni ki nga koy wax bàyyi jàmbur la war ngaa xam ni kii jàmbur la war ngaa xam ni way juru jàmbur la baat bu ñaaw bi nga utilisé wëlbatiku ni soxna Bali mooy kut sa sëñ sii di mel ni maanaam doomu raam ju nekk ca àll ba nga xam ne dañ koy kut ko doxaanaka def yëpp boo leen jox cër nga jox cër ñu njuum waaw wa waaye déglu déglu rek ma wax la déglu. Hmm, hmm. dafa am loo xam ne. nit bu hmm. fekkee ni kenn ku ci nekk. yàlla dafa daan la buy tóob mbir. ay mel ni da ngaa jóge ci xalu safara. kon wóor na doo ci tegaat sa tànk. wax saw nga woo xam ne adduna sépp kenn mënut a sigg. ñëpp am lu leen naqari. ni muy ak ci biiru mbokk moo tax waaye barki alxuraan karim kon day dugg leen li a waata ci Serigne Touba mooy lenn moo ci mën a nekk a set nga taxaw ci kanamu askan loolu ci laa a fi ne loolu ci laa ne fi ne ku mu ci moom na gaaw na mu gën a gaawee bu dul loolu ñun gën a xool ahad laa la wax maa ngi sama taay wax de jox naa la sama bopp ah. bay sama maa ngi sama taay wax rek jox naa la sama bopp bay boobu foo wax xamee dafay nañ ko barke Sëriñ Tuubaa du ma fekk sama moromu góor. Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima